professeur Adams Tidjani ñu ngi lay nuyu. maa di fay. di sàkku waxtaan bi ak yow euh, en tant que environnementaliste euh, di gannaaw nag benn euh, jàngat bi nga xam ne fësal nañ ko ci xibaar yi muy sept cent mille kilos masques chirurgicaux yi nga xam ne dañ koy jëlee andi ko fii ci mim réew mu gën a yokk la ñu nemmeek woon deux mille dix neuf li ni gannaaw jàngat yi nee nañu am na njeexital ci li di environnement bi. Euh, dañoo bëggoon a xam euh, conséquences yi direct waaw xam ngeen ne masque yi euh, pratiquement plastique ñu ko defaree donc buñ ko jëfandikoo ba pare di ko sànni lu si wër ma di ne ko day yokk déchet plastique yu nekk si jaww bi mais je pense que si njëlbeen gars yi dañu xawoon juum parce que dañu diglaale population yi masque yi benn yoon ngeen di ko utiliser ngeen sànni ko mhm. alors que am na études yu wane ne masque yooyu mën nga ko fóot fóotaat ko ba fukki yoon euh, fonction bu mun a am maanaam di la protéger contre euh, mbas bi euh, dina fi nekk ba léegi donc je pense que loolu buñ ko jàngaatee tuuti dina wàññi maanaam déchets yu nii si masque yu jóge si masque yi lu bari parce que nit ñi utiliser réutiliser seen masque donc du ñu soxla ñu jëndati masque yu bëri mais ginnaaw loolu nag euh, déchet masque yi lu si lu dina dina yokk déchet plastique yu nekk si jaww bi euh, kenn mënu ko weddi euh, mais nag maanaam jàngoro bu mun bu mun indi si jaww bi kenn mën na ko méngale ak luy mbuusu plastique di indi si jaww bi parce que mbuusu plastique yi ñëpp xam ne ni euh, léeg-léeg duñ koy jëlee di ay desitu ñam léeg-léeg xar yi wala nag yi di ko bëgg a lekk loolu moo leen di fatt ba ñu dee. Mm-hmm. te am na études yu sax pratiquement chaque année noonu ñàkk pratiquement dix milliards ci xar yi wala nag yi di dee ndax déchets plastiques yi alors que masques yi. Euh, ñoom xar yi wala euh, nag yi buñ ko gisee duñ ko lekk parce que saful dara donc je pense que impact bi mënul niroo quand même ak déchets plastiques yi. kon bu ma la déggee ngay wax sachet plastique yi ñoo gën a am njeexital gu baaxul ci gàncax gi. ah absolument sachet plastique moom lu muy jur comme euh, ay jafe-jafe si jaww bi moom dafa bari. mais perte biodiversité ak lépp yu si bari. plastique bi moo ko indi. d'accord kon lii nan lay yàqalee gàncax gi tey masque yi concrètement parce que bu dee euh, amul benn njeexital comme sachet plastique yi. Mhm. Euh, lii di animaux yi duñ ko lekk euh, wala ci garab geek yenn yi suuf si rek la mën a am njeexital. waaw mais xam nga comme mbuusu plastique xam nga mbuusu plastique euh, comment comment dire lu muy lu muy jëkk indi. Ah. moom ne tubaab njaay di wooyee kooku mënuma ko wax si si wolof mooy mm. pollution visuelle. xam nga boo demee si si si bërëb. Mhm. nga gis fa ay sachet plastique si àll bi muy traîner noonu. Mhm. loolu daf lay choqué. donc mbuus euh, masques yi loolu la mën indi. Mhm. boo gisee ay masques tasaaroo si mbedd bi nii xam loolu boo boo duggee fen da ngay ne fii dafa salte loolu euh, maanaam impact visuel bu muy indi boobu moo gën am doole yeneen impact yi. donc euh, je pense que impact visuel bi mais pas de essayer xalaat mooy naka nanu mun jëlee masques yi pour recycler leen. et justement euh, lan mhm. ngeen jàpp ne mooy solution ngir recyclage bi. bon solution bi man lu ma gisagum bon parce que boo jëlee masque bi am na buum am na weñ am na plastique. Mhm. Euh, weñ bi moom du problème bu ñu ko dindee mënoon ko jaay defar yeneen yeneen instrument euh, bu bi tamit kooku moom cellulose la kooku mun nañ ko recycler assez facilement. Mhm. léegi plastique bi il faut que ñu mun a xalaat ak industrie de transformation plastique nak na ñu mun a jël euh, mbuusu plastique yi maanaam mbalitu euh, masque yi. Mhm. dugal ko si production par exemple ay ay mbalit ay siis et cetera mais loolu. il faut nga am ni woy nga gëstu tuuti ak waa ñuy ñuy def ñuy def recherche xool naka ñu ko mën a dugalee ñaata pourcentage moom mën a dugg ba nga xam ne ni yow mii chaise bu ngay produire dina nekk qualité bu méngoo ak chaise boo xam ne ñu ngi ko produire sans déchet loolu yëpp recherche moo la koy jox moo lay wax naka nga ko mën a utiliser loo war a euh, dugal si biir euh, formulation bi ba nga xam ne di nga am ay produits de qualité. Mm-hmm. wax ci leneen professeur muy dagg gor garab yi ak mhm. jaay ko ci anam gu gu lewul euh, mhm. tey jii euh, ñu gis ne dafa gën a yokk ci jamonoy mbas mi ca zone sud maanaam ca euh, Nord Sindian fi nga xam ne foofu la fore wi gën a bëree mhm. tey ngeen jàpp ne niñ koy gën di daggee nii ndax tamit du am njeexital ci suñu environnement tey waaw lu wóor ne ko boo daggee garab yaa ngi non seulement yaa ngi gaañ environnement bi parce que garab ñëpp xam na ne garab bi buy màgg mooy jël co bi maanaam gaz carbonique bu nekk ci jaww bi mhm. ko consommer parce que te boo wàññi gaz carbonique bu nekk si jaww bi yaa ngi xeex réchauffement climatique mhm. te ñëpp xam na ne réchauffement climatique jàngoro yu mu mën a indi ginnaaw loolu tamit dagg garab da ngay lor euh, mala yi nekk ci biir àll bi. Mhm. donc yaa ngi xeex biodiversité bi te ñëpp xam na ne boo seetee eh, nag kii eh, béykat yi ak ñu amee éleveurs yi ñu si bëri lu ñuy dundee eh, lu ñuy jël pour def seen économie ñu ngi koy jëlee si jaww bi loolu dina wàññeeku mais ginnaaw loolu je pense que il faut que des suñu dëkk yi ñu mën a nu mu ko waxee yëkkati seen baat tuuti mm-hmm. au niveau international. boo seetee amoon na benn protocole bu ñuy woowee protocole de Kimberley boo xam ne ni boo amee par exemple ay diamant am na yenn ko souci munoo ko jaay te waxoo foo ko jëlee foog naa ne bu defee loolu si bant bi nu am euh, affaire bi dina wàññeeku. Mm-hmm. parce que bu ne tey jii boo defaree benn meuble wala ba defaree benn porte war nga wax bant bu nga bu foo ko jëlee. ñu am traçabilité ñu mën a xam est-ce que garab bi yaa ngi ko dagg légalement wala illégalement loolu yëpp tant que amuñu ko trafic bi day continuer mm-hmm. te loolu état bi moo si war a a jóg sensibiliser population yi sensibiliser acteurs yi. Mm-hmm. bu bu defee une bonne sensibilisation muy yow di man tey bu nu rombee benn camion bu yeb ay ay bant war nañ ko mën a taxawal ne yow eh foo jëlee bant bi ak foo jëm. maanaam sénégalais bu nekk mu nekk un na lu may waxee un soldat de l'environnement mm-hmm. kooku bu nu te kooku communication sensibilisation rek moo ko mun def te état bi moom mun a porter loolu mm-hmm. yéen ñu ñuy duppee environnementaliste gën nañ leen ñu ngi leen di gis sax ci li nga mm-hmm. xam ne mooy littoral bi nuñ koy daggee ñu sentir leen ci di dégg seen sensibilisation nim ci taxawee mais dafa mel ni li ni mel euh, nemmeeku ñu ko ci wàllum góor garab yi waaw xam nga euh, je pense que euh, euh, parce que autorités yi gisaguñu importance maanaam jàngoro yu góor garab di indi. Mm-hmm. parce que garab garab maanaam verdure garab mooy lekk. Mm-hmm. garab mooy biodiversité garab mooy indi taw garab mooy garab daal mooy lépp. Mm-hmm. te autorité bi je pense que mesuré wul importance garab si biir environnement. donc xam nga loo xam ne ne joxo joxo ko cër ah comportement bi rek bu mel nii rek nga mën a am par rapport ak euh, maanaam euh, dagg garab yi. Mm-hmm. doo ko doo ko doo ko jox fayda doo ko faale léegi ko gars yi góor garab yi ñu ngi continuer di ko def tranquillement affaire bi di yokku. d' accord mu am tamit leneen li nga xam ne euh, nemmeeku nañ ko ci suñu réew mu am fii mu doon lu bees euh, muy la xew ca Ngajaga mu doon hmm. euh, teen boobu nga xam ne ñu ngi fay exploité gaz mu tàq jamono jam <laughs> tàq ba léegi dara soppeekuwul tàq-tàq gaa ngi fa ay nit ñoo ngi fay yeewoo tey lan mooy njeexital gi conséquences yi justement foofa ca Ngajaga bon conséquence mu njëkk mooy Euh, lakk bi day indi lu ñu woowee pollution de l'air maanaam am na ay produits toxiques yoo xam ne dina joge si lakk-lakk bi nag dem si jaww bi boo seetee ñaari semaine si ginnaaw amoon na ngelaw yu bëri Dakar mm-hmm. ba boo seetee ngelaw boobu dafa doon indaale sax euh, fumée bu doon génn si si puits bi mm-hmm. pour war na ne que ce n'est pas uniquement ñu dëkk Gadiaga ñoo impacté mais ñun ñëpp ñu ngi impacté parce que jóge na ba Gadiaga ñëw ba Dakar mais ginnaaw loolu lu nu lu nu ñaawlu mooy naka une société américaine mun a exploiter gaz bi te amul lu ñuy wooyee un POI man un plan d'opération interne boo amee un site boo xam ne ne am na danger lu ma war a jëkk a def mooy étude de danger xam def scénario tous les scénarios possibles yoo xam ne ne mun na indi ay jafe-jafe pour jaww bi mën na indi ay jafe-jafe pour population bi et cetera. Mm-hmm. Mm-hmm. ginnaaw boo defee loolu nga war a xool yan matuwaay nga war a jël pour en cas bu amee un accident pareil nga mën a combattre accident boobu te loolu euh, étude de danger moo la koy jox. POI te POI bi war nga ko valider du way par la direction de la protection civile. Mm-hmm. moo lay wax mooy responsable bi. bu dee ah, li ni mel li mataloo ko te amul contrôle. ah mais ça c'est l'État état bi la puisque état bi mooy euh, moom moo joxe exploitation ressource ressource naturelle bi benn société américaine donc c'est à l'état il a texte yaa ngi fi il y a des textes on a textes yëpp ngi fi si dëkk bi les mm. textes réglementaires am nañu fi mais <laughs> peut-être état bi moo décidé que ñi euh, ils sont exemptés de textes réglementaires léegi ñu ngi def la neex mm-hmm. puis baa ngi nii ça fait pratiquement un mois mu ngi lakk un mois mu ngi impacté suñu environnement. Mm-hmm. population yi nag gajaga dundutunu et cetera et cetera donc loolu le est l' état qui est principal responsable. parce que société américaine boo ko ne lii balaa ngay def exploitation lii nga war a am comme kayit lii ak lii <coughs> dina uti kayit yooyu te ko kayit yooyu balaa mu koy am si lu leer lay wane balaa ñu koy jox kayit jox ko benn euh, jox ko kayit yooyu état bi mooy responsable. Mm-hmm. wax ci leneen muy euh, euh, lii di arme nucléaire yi nga xam ni ne euh, léegi jamono ji interdire nañ ko à travers benn traité international bu entré en vigueur le 22 janvier gi ñu génn ndax tey ji arme nucléaire yi amoon na njeexital également ci environnement bi mu mën indi si bëri na si tubaab bu may posé question bi euh, spécifié woo ne arme nucléaire mm-hmm. arme nucléaire bon mm-hmm. léegi bu bu bu bu njëkk mooy bu ñu jëlee exemple Hiroshima ak mm-hmm. Nagasaki c'est la première fois ñu doon ñu ñu ñu arme nucléaire si si si si benn dëkk ñëpp gis nañu conséquences ça ba léegi sax am na ay conséquences ay ay nit ñu nga xam ne ni ñu ngi am ay jàngoro yoo xam ne ne arme nucléaire bi moo leen ko jox. Mm-hmm. ce qui fait que aujourd'hui arme nucléaire non seulement tey rey nit ñi mais day détruire biodiversité bi moom gaa jàngoro yi mu mën a am moom kooku moom pour calculer ko kenn xamu ko te du nekk sa à un instant mun dem ay des années des années ngay gis kii am na par exemple après Hiroshima ak Nagasaki am na ñoo xam ne ne ñu ngi doon am doom yoo xam ne benn bët ni ñuy am. ni ni formation mhm. cancer du poumon bi bare et cetera et cetera am nucléaire moom bu ñu ko ratissé ñu ko ñu interdire ko kooku moom vraiment war nañu ko rafetlu kooku lu lu baax a baax baax la pour euh, environnement mais pour nit ñi pour euh, la paix dans le dans dans monde. D'accord merci beaucoup professeur.